ayca final baa ngi noonu fii ci Diofior nee naa leen waa Mbugir bu ñaari tali Diofior ñoo woote woon di ñëpp di ziar ñëpp Babacar Bob la boutiquier sama grand maa koy ziar bu baax a baax waaye Mbaye Sack mon frère ci suuf Babelito bëgg naa la maa fa de bu Diofior la ab gaar yaa xadi bu simal di bëgg waa simal lang jaata lang fanta wala lang fay waaye sama gara Abdourahmane Ndong ca simal maa koy bëgg maam Fade Diop yor Badara simal maam Fade moo ñu Badara lañ jàkkaar Beni avertisman pour kat. Arbitre nee na ko daa am loo sotti sa adversaire waaye ba dara bu simal Radia Khadima Fata Diofior Ngana ngi dox ci kawam Ngane jël na tànk ma Fata la ilaha illallah ay jëlante tànk la final la mënu yomb waaye Ibou Sulum le grand entraîneur de Ndefleng maa koy siyaar suluk eh gaan yaa xadi maa fa de takk fa de caxabal ba da koy daan wala mboot caxabal mu bañ moytul ma kor bi wala mboot bi gaana koy dajale mu ngay defar palaake oh. Fodé bañ na arbitre Mbot deuxième pied